loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam wii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowu làmmiñu tubaab moom la fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq sa xam yi nga xam ne moom la wax guddeeg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mënoon na ko ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen dal di xeeb seen bopp ne man baa doon laa jànguma dal di tiit defe ne li wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen sabi yet asalaamaaleykum maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, comme ni ngeen ko xamee seen fayal Abdou Karim Gueye euh, membre du mouvement dëgg alors tey encore rek pour defaat benn vidéo euh, juste rek pour waxtaan vidéo bi nag dama ciy waxtaan tuuti rek waxtaan ci sama mbokk sénégalais yëpp xam nga samay frère samay sœur samay papa samay mag ñu nekk ci politique bi ñu nekk daal képp ku nekk Sénégal képp koo xam ne rek yow Sénégal yitteel na la ñor na la ñu am nag ak yéen boobu léegi mi ngi bëgg yàgg euh, di def ay di wàcc ci mbedd yi di xeex def ay xam nga di di di di nekk ci combat boo xamante ni dafay laaj ay eh, dafa bëri ay ndëgg sërëx bëri ay communication bëri aussi fa yow yegg du man eggu fa yenn yaa def lii yaa wax lii wala intention bi nga am wala yéene bee wala soo waxee ñëpp kenn ku nekk di wax xalaatam si yi nga wax am ci yoo xam ne nag ñàkkul am na ñoo xam duñ koy comprendre am na ñoo xam tamit dinañ comprendre certes que man je préfère être un euh, un étalné incompris sax que que que nekk que nekk di justifier à chaque fois di expliquer di expliquer loolu taxuma jóg mais da fekk ne rek baax na si ma ma ma ma ma ma ma leeral yenn point yi fi may njëkkee d'abord mooy euh, ñun Sénégal ñun boo seetee Sénégal rek moo ñu ñor te baax na si ñu leeral ko Sénégalais ñu xam ko parce ñor bi ñu Sénégal ñor mooy. dañoo gëm ni réew mi ñi ko yor baaxuñu loolu ñu gëm la dañoo gëm ni réew mi ñi ko yoroon depuis soixante ans baaxuñu te niñ ko yoroon baaxut te loolu lu ma gëm la ma gëm ni Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ni ñu yore réew mi baaxul ba ci Macky Sall mi te amuñu yéene bu rafet ci réew mi te lañ waroon def defuñ ko fañ waroon taxaw taxawuñ fa te ni ñuy gouverner Sénégal wul ak ngëm-ngëmu Sénégal méngowul ak image yu senegal méngowul ak sunu sunu sunu cosaan ak sunu aada réew mi yor nañ ko ci yor boo xamante ni yor bu doy waar la bu yor bu jéggi dayo te ñi ci nekk ñëpp yor ko kenn ci ñoom nawlawul réew mi c'est que loolu mooy cool en réalité kenn ci ñoom nawlawul réew mi nawlawul mooy sénégalais buggul suufam su sañoon nekk Amérique France Allemagne Angleterre ci yeneen dëkku jàmbur yi ba ci Maroc gi sax sénégalais buggul làkkam bu sañoon. buy wax sax làkkam foog mu dugal ci ay tubaab bu sañoon français lay dégg du dégg joola du dégg soose du dégg wolof wala day làkkam sax daan dégg ko sénégalais buggul kayitam mooy comme buggul réewam rek kayitu dëkkam kayitu passeport sénégalais moom bu sañoon am passeport américain passeport te yooyu yëpp dara waralu ko lu dul liñ ñu gëmloo ni ñun amuñu dara ñu nekkuñ dara ñun amuñu aada amuñu cosaan ñun amuñu amuñu dëgg amuñu xéwal loolu en loolu dañu ko gëm gëmloo jàngal ñu ko ci impérialisme bi nga xamante ni mu ngi dooree ci école française bi fi nekk nii te loolu yëpp boo seetee ñi fi nekk di jaay intellectuel xam-xam nekk ci télé yi di soxo soxo di naxaate di wax yëpp ci école française dañ génnee ay complexe na yoo xamante ni boobu léegi ñoom ñëpp ñoo fi nekkoon di gouverner Sénégal Abdou Diouf kenn daax koo jàng Senghor leen daaxoon jàng fuuf Abdoulaye Wade avocat la woon. ñoom ñëpp c'est ay ay master am Macky Sall mi boo demee am na master en nangam nangam xam nga nangam jàng nangam dañoo jàng jàng jàng nañ quoi. Université Cheikh bi li muy defar ci ay nit defar ci ko nit ay ñu nekk ay intellectuel comme ni ñu koy waxee ñoom ni ñu koy si ni ñu koy waxee ñoom nekk ñoom ñëpp dañu échec ci yoon wi nga xam ne jël nañ ko ne dañ koy dimbalee Sénégal loolu en réalité jàng seen jàng bi yëpp nekk lu dul leen servir ñoom. te loolu loolu wane nañ ko wanewaat ko wanewaat ko ci ay maintes reprises yoo xamante ni ñoom toog nañ ci bopp réew mi te li ñu def yëpp ci seen bopp lay yem te Sénégal avancé wul ñoom rek ñooy avancé ñoom ñooy avancé te li ci jiitu d'abord mooy pas-pas la tubaab di njëkk dindi si yow mooy sa ngëm-ngëm ñun suñu problème mooy en réalité ñun ñun dañuy foowee yàlla ñun gëmuñu yàlla ñun du ñu bàyyi xel yàlla te yàlla li tax mu bind ci kaw suuf du dara lu dul lépp lu ñu def rek ñu bàyyi ko ci xel xam ne yàlla binduñu pour fo daf ñoo bind pour ñu koy jaamu malheureusement Sénégal ñun amuñu amuñu amuñu ndimbal boobu amuñu école bu ñuy dimbali ci loolu amuñu enseignement bu ñuy dimbali ci loolu amuñu ñëpp ñoo xam ñi ngi dox ci loolu amuñu fu leen institution yi wala fu leen texte yi wala fu leen réew mi teg foo xamante réew mi dafa ni fournir éléments yu tax ñu mën a dimbali xale yi ci que réew am réew dëgg moo ko yor ak fula ngëm yàlla tey ñi xëccu réew mi yëpp ñu ci ëpp boo leen xoolee en réalité ay complexe lañ ay nit lañ yoo xam ne amuñu diine ay nit lañ yoo xam ne tey ni ñuy fowee noonu la amee gel noonu la ñuy naanee sàngara noonu la ñuy taxawaaloo fii sax dañuy nekk ay nit yoo xam dañuy parce que parce que réalité dañ dul def pas-pas bi war a nekk ci ñoom dañ ko deful ci ñoom te loolu ñu mi ngi continuer di gën a ëmb suñuy doom di gën a màgg ak suñuy njaboot xale yi judd di ko fekk si te ñu war ko wax war ko expliquer Sénégalais yi xam ko man nag tey boo gisee mooy def ci xaru vidéo bii nii c'est juste rek pour ñu xamni man duma awma ennemi Sénégal man noonu ma kenn boo leen gisee tay ñun ñu taxaw di défendre Ousmane Sonko parce que dañu tok ak mom jëmil dinañu dimbali ci vidéo bi non rek ñen am ci tuuti coupure dañu tok ak mom def vidéo wax ak mom laaj ko ay question ci li ñu bëggal Sénégal ci depuis des années et des années te mënu te gisunu kenn ku ci taxawon mom mu ñu indi xam-xam ak idéologie bo xamanteni ñun yag nañ ko xex pour xamni li moy doxal Sénégal ci d'abord gëm ni li jitu ci Ousmane Sonko mooy mu gëm ni mooy njiit yàlla moo koy joxe mooy nguur yàlla moo koy joxe mooy nekk président yàlla moo koy def foofu la nit ñi rawante mooy nga gëm ni yow li ngay nekk yàlla moo la koy dox parce que yow mënoo bi ngay jug nekk député plus fort rest nga demee ngay dem di dem di dem di dem di dem politiciens yi woon la ginnaaw kenn àndul ak yow ñëpp contre la taxawee beneen côté présidentiel ñëw ñëpp bàyyi la dem ànd ak Idrissa Seck ñëpp nag. ñi nga andal ni tay ñepp la baye dem and ak Idrissa Seck yow nga taxaw di ñafé jóge ci plus for reste assemblée nationale ngay dem di dem ba taxaw ba nek 3 troisième parce troisième position ci présidentiel 2019 prix for reste ba puissance 3 troisième position ngay dem di dem di dem di dem ba ñepp won la ginnaw ba ba politiciens yëpp wan la ginnaw xale yëpp fekk si la mag ñi di la fekk si sëriñu daara di la fekk si ñiy dund sunna di la fekk si nit ñi di la fekk si Touba Tiwaaw nit ñi di la gëm xale di la gëm école yi yi nit ñi di la fekk si ci idéologie bi ngay prôné ci njiit yàllaa ko yor li ñëpp bokk ñëpp jot ci amul séddoo amul partage c'est-à-dire euh, ngëm-ngëm boo xamante ni nekk ci patriotisme boobu di la fekk si politiciens yaa ngi taxaw seen côté rek nga dem ba ñëpp fekk si la ñu lay jiñ viol di yàq sa der àdduna bi yëpp fekk si la xam nga dafa grave ñu dem ba bi yëpp fekk la ñu dem di sa der di la yow nga bàyyi ñooñu ñepp ñepp fekk ci la nga bàyyi ba ñëpp fekk ci la nga gëm sa bop deugal bu ñepp fekk ci la nga bàyyi fa ñu la fekk ci dem fekk ñi la fekk jiwul won te boko ko waxee les gens t'insultent ñii ñu comprendre ñi def ay live génn di wax ñi ku nekk di wax te duñu xamuñu ni en réalité ñun projet bi daf ñu ñor que projet bi du nit moko mom Ousmane Sonko moomu ko te ñor nañu ñor bo xamanteni en réalité ñun buñu ñu di wax rek parce que ñoo gëm ni li ni fi mu jëm musiba la moo ñuy alerter di def suñu rôle d'activiste chaque jour mo wax bis bu ngeen comprendre ni ñun ñun man wallahi azim lepp lu may wax ci sama live ni yalla rek la koy man damay sante yalla parce que waxuma ndax kenn daf ma fay waxuma pour lu neex ay nit waxuma parce que damay bañ ko ma waxuma parce que damay bañ Macky mer wala mu contane waxuma damay bañ Ousmane Sonko mer wala mu contane waxuma damay bañ wa mer wax Sénégal wax deug bi nga xamanteni moy dimbali ko yor ko hein? parce que da ngay bañ ku lyncher parce que dañuy bañ ku en commentaire parce que dañuy bañ dañuy bañ nit ñi dañ dem ba légui sax yàlla xoolatuñu yalla ndax dañuy ragal nit ñi bàyyi yalla ta fi ngay taxaw di wax mu leer ni li ngay wax deug la lan mo tax nga yaa xam ci deug bi ngay wax ci saasi rek nga bëgg ñëpp accepter la ko ñëpp tàccu la ci saasi kon li wax ana yalla bi tax ngay wax man dama bëgg dellu soit activiste yi dellu soit ci télé yi dellu soit journaliste yi dellu soit patriote yi dellu soit leen ñu dellu soit ci fi ñu nekkoon parce que il n'est pas trop tard hein.

man neexaluma kenn ci li may wax damay wax rek te yàlla tax di wax di ci ut ngërëmal yàlla ak di xeex di rayante man mënoon naa fi nekk di éviter ay clash di bañ di xool lu ma raaye ku nekk ma raayal sa ndigg di lu neex nit ñi di wax ñu may tàccu di di tàgg Sonko di ko yëkkati di ko sabal man li may wax nii lan laa si gagné. li ma si gagné mooy lan mooy pour éveiller conscience yi pour profiter rek pour pour daal di gaaw xëccoog gars yi nga xamante ne tey li ñu bokk mu nekk lu baax ñoom ñu ngi koy xëcc mu ñëw seen côté ñun ñu war xëcc ko mu ñëw suñu côté te nit ñi comprendre loolu. mais dañ dem ba en réalité gars yi dañoo tay dañoo tayal sax xalaat même chroniqueur yi ci rajo yi sax télé yi sax dañuy gis ni kenn ñemewu ci critiquer Ousmane Sonko te Ousmane Sonko fait beaucoup d'erreurs kenn ñemewu ko wax parce que dañuy bañ ku leen clash pour ñoom ku ci wax rek dootoo am bës pour ñoom ku ko wax rek dañ lay fay ku ko wax rek dañ la saag nit ñi dañ lay woon ginnaaw dem ba di sosal ay nit di yàq deru ay nit ñu dem ba Macky Sall réussir benn affaire bu doy mooy lan fexe ba troisième mandat bi mu dem ci sëriñ si wax leen troisième mandat yoon may na ko mu am ko mu dem ci sëriñ si fexe ba wan ni xool leen xale yu Pastef yi li ñuy def xool leen xale yu patriote li ñuy def xool leen ñoom Karim Xurum Xax ñoo ma bëgg a ñoo nekk di saaga ñii ñooy saaga sëriñ si ñoo def nangam nangam nangam di jël ay nit yoo xam ni en fait fu nekk la ñuy taxawee di utiliser waa Pastef utiliser patriote di leen nax patriote yi leen nax dañ bari

yàqu na parce que ku nekk yaa ngi wax parce que ñii dañ leen fay ñu wax ñii dañoo bëgg waa Pastef boore leen si ñii dañuy am wecc du ñeen di jox ñii Macky Sall daf leen di jox xaalis ñëpp di profité di wax te ñi war a jël position taxaw wax dëgg gëm ko def ko te yàlla tax defuñ ko parce que dañoo ragal ragal ay nit bàyyi yàlla lu waaye di wax te waxoo ko te yàlla tax di ko regretter te yàlla dina la weer damay ñaan yàlla rek képp koo xamante ne da nekk ci projet bi di ko xeex. nek ci di wax te li ngay wax waxoo te yalla tax te li ngay wax dang ko wax parce que yow da nga am ay intérêt yo ci jiital te li ngay wax ninyi, koy wax pour nax nit ñi nax patriote yi nax nit ñi gëm Sénégal yalla na la yalla wër yalla na la yalla wër kep ko xamanteni yow da ngay ray sa bop pour am yegg ci instance de décision yi nek dara moo tax ngay buxante di ne bab nit ñi yalla na la yalla wër bla 2024 te képp ko xamni ni Sénégal buñ ko téggé sa loxo do ci doxal liñu bëgg yalla bo ci jot ndax gaan xex bi dafa yag Sénégal dañu sonu dañu Sénégal depuis 60 ans ci notel, ci fen ci wor ci Satch, ci tas yaakar, éducation bi santé bi baaxul dafa yag dafa yag amna xam eau potable ndox buñu naan ay jigen xam amuñu mais bi mo yag te liñ ko yépp du la politique yi xam ño fi nékkon ño fi nékkon bo ba légui kon képp ku la politique autrement rek su dafa doxal bu idéologie patriotisme idéologie Pastef nak du Ousmane Sonko idéologie la du affaire nit il faut ngeen tak seen fiti yi quoi Pastef yaakaar naa ñëpp du wenn nit rek mooy décédé quoi pour man parti politique la boo xamante ni am na ay nit yu intégré yu gëm seen bopp yu ci nekk yoo xam ñi ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko jug leen ngeen jàkkaarloog Ousmane Sonko ngeen xëcc ko récupéré ko ngeen taxaw ko ngeen défendre Sénégal ngeen taxaw ngeen défendre idéologie bi quoi mais rek tax quoi mais Ousmane Sonko bu na def parti bi tas day tass quoi ku wax ñu saga la ku wax ñu critique la son ku lu def nonu la du juum wu la malaka la moy superman ni mi xalaté dafa graw il est extraordinaire mais su xeyun dee nak yalla na yeex su xeyun nak nan la def amul ben parti bi parti passif li muy réer amul ben nit bo xamanteni ni mën na taxaw ci ginaaw Ousmane Sonko quoi taxaw wax ak mom deug quoi waxu fi ngay dugg baxul li ngay def baxul li nga nek ni baxul te kuko wax ñu lynché la saga la troxal gaal ñu Sénégal rek mo ñu ñot ñi Sénégal rek moo tax ñuy wax te damaa gëm li may wax nii damaa gëm ni ba léegi nii trop tard mën nañu récupérer sunu sunu sunu sunu combat parce que li ñu xeex yi warul nax saay xale yi dee en mars quatorze personnes dañoo dee parce que projet lañ gëm dañoo dee parce que dañoo gëm ni seen avenir lañ nekk di tayle moom la waa ji bëggoon Macky Sall sax saxee dañoo dee parce que dañoo gëm ni Sénégal dafa war a changer changement boobu nag changement boobu changement bu radical boobu li koy def mooy bañ a xaritoo homme politique yi xaritoo beeg lambisoo bi gars yi na man soo leen gisee chaque fois may amu complexe kenn xaritoo ma ken ci Sénégal laajuma ken juróomi deureum soxlawu ma dërëmu kenn ci senegal luma nit di defal dama koy defal ta yalla tax bo dee dama koy defal pour ma lay waxal lu bax yaa ngi nax sa bop sama ma wax damay wax li ma chaque jour ma wax lutax ma wax loolu parce que dama xamni ni suba bugguma sama wax makoy fayé bor wala makoy koy bor kon Serigne Abdou lim don wax mais bu démé ba ñuy vaar Ousmane Sonko ça nous fait mal ça nous fait très très mal te deug la te ay fele yu am nek sunu kanam ni kan moo koy xeex kan moo koy dindi man daal message bi loolu laa ci amoon bëggoon rek tëjee ko sama gars yi ñuy wax ay Karim Bamba Fall la loolu tamit bon man sax dama ne lu ma si wax mais ay y a des amis dañuy insister leeralal loolu wax naa ko ci plateau njàpp bi tey ma ko leeralaat sama carte mu ngi noonu man Biscuiterie laay voté Grand Dakar Biscuiterie man mënu ma voté Médina sama waa gàlle maire samay kër maam samay frère ñooñu ñooy voté foofu man voté wu ma Médina bi wax ñom la doon waxal man waxuma man voter mu medina man Biscuiterie la voté Biscuiterie la voté pour muy clair man bi voter voté Barthélemy Dias laa voté ville Barthélemy Dias te Yewwi la voté sax ci ki Yewwi la voté ci local local te vraiment amna luma ci regretter trop parce que amna yo xamni comprendre nako après ça m'a fait très très mal mënoon nak and ñep and ak yow nangul la nga dem ba ñep nangul la nga bayyi fi ñi la nangul dem top ñi la nangulul woon. ba pare ñom ñi partager ak yow li nga xam ne ñëpp joxoon nañ lako nga koy séddoog ñom lolu lolu manque de respect la ci askan wi la top quoi na sonko delu ci wa delu ci len wa passif delu ci len quoi après nak critiquer len saaga len wax len loolu neex mais luma ma nit wax rek ma japp ni projet bi ngeen bëgg rek c'est très important ma ngi ni jégalu di len balu ax euh, di len ñaan ndox dajé du yag dara inshallah rabbi sen frère abdou karim gueye mamadou mouvement deug mbokki Sénégal ak li ko wër yéen ñi am ndaq rek tiis ci lépp lu jëm ci seen wàllum yaram ah mbokk yi solution bi ñëw na ki jóg ngir jàppale leen dimbali leen ci seen wàllum kaaraange seen jafe-jafe yaram ak lu mën di dool ah mbokk yi solution bi mooy Serigne Babacar Ndiaye Serigne Babacar Ndiaye dem gëstu ji xam-xam ba am ko Serigne Babacar Ndiaye jàng xam-xam ba mokkal ko ni ma nag fal dammel ma ni ko amu ah ni ma li faratas yàlla sunos Mouhamed rek laay dox ay garab yu baax la ñu yor yow mi nga xam ni da am jafe-jafe am doo moo xam ci góor ki la nekk wala ci ku jigéen gi gaaw leen gaaw ngeen dem seet Serigne Babacar Ndiaye mu dindi leen ko ngeen ngeen am ci satisfaction am doom ci ni mu gën a gaaw moo xam ndax ay raba la ko def muy ci ku jigéen ki mbaa ci ko góor ki lépp lu la mën a dal moo xam faiblesse sexuelle impuissance sexuelle boo ko seetee yow miy góor mu fajal la ko ci jooni jooni nga yëgaat sa bopp bu baax ñibbi mel ni fitt gu mbër sànni kër gi neex soxna yi kontaan nga kontaan yow mi nga xam ni da ngaa am jabet gaawal gaaw nga dem seet Serigne Babacar Ndiaye alxuraan nee na ma da koy dindi ba mu set wecc nga tàggoog moom yow mi am hémorroïde moo xam externe wala interne bu mu ci mën di doon Serigne Babacar Ndiaye da koy dindi ba mu set wecc macha allah ba ci ndoxum siti Serigne Babacar Ndiaye mi nga xam ni sa xol day metti foo toll muy tàng ngay am la naqari te xamoo lu la ko def boo seetee Serigne Babacar Ndiaye tàggoog moom yow mi nga xam ni nag sa loxo dafa bënn loo yor mu ni furaas daal di xëddeen doo xam fu mu jaar am na ci ñaan gu mi mënta am dara tëju buntu boo fëgg mu dëgër seetil Serigne Babacar Ndiaye mu tijji la buntu yow mi bëgg bayre bëgg siiw moo xam mbër nga war a artiste seetil Serigne Babacar bu Wassare la mu ni ma am naa bayre mbooloo am naa bayre njaay kon commerçant yi daw leen yow mi bëgg ay kayit moo xam nga ne ci réew mi bëgg a ay kayit ñibbisi seetal Serigne Babacar Ndiaye mu dimbali la ci yow mi bëgganteeg sa soxla dëkk ci ay jafe-jafe ay problème xuloo guddi xulee bëccëg demal seet Serigne Babacar Ndiaye seen diggante mel ni lem ah kon nag mbokki Sénégal ñoo ko déggandoo mbokki Ceeskaay ñoo ko déggandoo Serigne Babacar Ndiaye alxuraan solution ba damay jàkkaarloog yow wax la li ne ci yow te doo ma jox tur weddi gis bokku ci Serigne Babacar Ndiaye mii ñëpp a ko soxla yow mi ko soxla nag gaawal gaaw nga woo ko ci numéro téléphone bii di 77 453 52 94 am na itam tàndarma yu baa ngi noonu mu ni ma Fall nga loo fàtte ma ko lan mu ma seet moom yéemu ma cee kenn ci réew mi du la wax baal ba suba du ma la wax dara wax la li ne ci doo ma jox tur weddi gis bokku ci Serigne Babacar Ndiaye mii ñëpp mi ko soxla nag gaawal gaaw nga woo ko ci numéro téléphone bii am na itam tàndarma yu baax yoo xam ne day neexal sëy ay tàndarma yu ubbi wërsëg ak Serigne Babacar Ndiaye alxuraan njàq rek tiis ci li jëm ci wàllum yaram jeex na Sénégal Serigne Babacar Ndiaye alxuraan daal mooy solution bi daw naa de jaageen coof